ci li nga xamne mom lañ ko mëna hamne xelal li ci bax mu jël la nga xamne safan wala yit mu tek ko ci suuf ndax nit matul ñi ngi wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk aduna bi yëpp képp ku dégg suñu nuyo bi rek yalla na yalla def nuyo bi fekk fekk la ci jamm suñu nuyo bi yalla na fekk yéen ñëpp ngeen nekk ci jamm mbass mi nga xamne mo wër aduna bi yalla nako yalla safara ndax mom dong mo safara bi jëf ñu leen di ñaan nag ngeen abonné ci xewal tv di bos cloche bi ndax bu ngeen ko defee vidéo bu ñëw rek day ñëw ci yéen te it dañoo bëgg rek di laabirante biir loolu rek lañ ci jublu jërë ngeen jëf monsieur le président ndeysaan bi feebar bi duggee ci dëkk bi nga am ci taxawaay bu rafet am ci yéene bu rafet jëf ji jëf ju rafet wàññi courant bi ci ni ci ko mën a wàññi ndox mi may ndox may nit ñi facti facture courant may nit ñi facture ndox ci ñi nga xam ne seen wërsëg ci la nekk maanaam ñi nga xam ne seen doole bariwul ñu ne la ñun dañoo ñaanoon ne la bu ñu jëloon xaalis boobu wàññi ceeb bi ba mu yomb lool wàññi diwlin bi ba mu yomb lool maanaam nga xam ne ku yor téeméer sax mën a am ceeb ak diwlin yaakaar naa moo gënoon a yomb waaye nag yow yaay dogal xañ na xalaat bi nga am moo gën sunu xalaat ba tax na ñu ne woon ñu waxataanaat it ne nañ teg mbir yi ci yoon maanaam mbir yi nañ ko teg ci yoon seddale bi nañ ko teg ci yoon waaye monsieur le président gis nañu séddale bi sax demagul coow commencé na man dama jaaxle ci réewu senegal Manam rew mo xamne lu am rek ñu bolé ci ay ciow ñun yalla jam ñun lu dal la xamul lan la ci transport bi ngeen di wax nit ñi commencé nañu naan def nañ ci juroom benn million juroom benn milliard ñi naan def nañ ci ñaari milliard ñi naan def nañ ci benn milliard genn wàll kon communication dafa baax ndax rajo kankaan yi maanaam ñiy dégg ci mbedd mi bu fekkee ñi nga war ñi nga xam ne ñoo war a communiquer bu ñu communiquer woon mu leer rek maanaam day leer ci bopp doomu aadama ndax alal ji kat monsieur le président yaa ko yilif yaa koy séddale waaye nag alalu ñëpp la ñëpp Sénégal gépp ñoo ci bokk yam kon fu muy dugg dafa war a leer manam ciép bi du ñing commencé di wax naan fii lañ ko jëndee kii moo ko moom ak kee moo ko moom te it yu mel nii su amatee monsieur le président dañ ciy da nga ciy dimbali ñi nga xam ne maanaam ay transporteurs yu ndaw lanu tey am na ñoo xam ne mënoon nañ koo jël mu gën a yomb ñu dimbale ci nit ñi ba pare ñoom ñu am ci astour waaye mun nekk ci réew moo xam ne bu dara génnee rek ñi nga xam ne ñoo ànd ak njiit réew mi ñoo ñoo ñoom maanaam ñoo koy ñoo koy moome loolu du démocratie tey jii seddale bii mënoon nañ koo jox sax koo xam ne bokkul ci pouvoir bi maanaam àndul ak njiit réew mi tey seddale bii mënoon nañ ko teg ci loxo koo xam ne sax àndul ak njiit réew mi ndax xaalisu xaalisu ñëpp la kookee bu fekkoon jox nga ko koo xam ne ànd àndul ak yow kooku du ci ñemee def dara mais tey gis nga. xaw ma si génn na wax benn mi benn mil euh, un milliard benn milliard ak genn wàll la ba pare ne wala ñaari milliard ni mu waxee dafa leerul moo tax sax mu boo koy wax da nga ci am jafe-jafe affaire bi àggul juróom benn milliard benn milliard ak genn wàll gën ngaa bari ñaari milliard la ministre Mansour Faye génn na benn milliard ak genn wàll armée abal jël ñu jël oto armée yi am transporteur yoo xam ne nangu nañu abale seen i oto tey jii ñi nga xam ne ñoo dëkk Sénégal nekk ay transporteur yu mag bu nu waxtaanu ak ñoom jël oto armée bi maanaam bépp koor bi nga xam ne am nañu oto bu mag bu mën a yóbbu ceeb bi ñu jël la jënd gasoil def ko ci du àgg sax un milliard ñun ñi ngi jooy nit ñaa ngi jooy maanaam commencé gunu sax nga dégg coowal coowal 1 milliard la 6 milliards la lan moo ci leer ndax ki nga xam ne mooy ministre Mansour Faye dane benn milliard ak genn wàll ki nga xam ne mooy Diop si dane genn wàll benn milliard la ak genn wàll gën gaa bari ñaari milliard la te moom moo yor marché bi kon kooku lëndëm lëndëm mi nga am foofu te it lu ngeen ciy def dafa war a leer société bi jënd ceeb bi ñu ne société diw la diw moo ko moom ñu bàyyi far farloo par parloo bi dañ koy bàyyi ndax ñëpp ñi ngi doon xaar affaire bi am coow ndegam yóbbu bi rek moo am coow waxantuma laag nag séddale ba ndegam transport bi di ko yóbbul nit ñi ñoo am coow waxantuma laag nag séddale ba bi ci des c'est euh, monsieur le président dafa am ñu ñuy wax miskin am ñu ñuy wax faqir miskin mooy ko andak ak maanaam koo xam ne dafa ànd ak laago mën a taxaw wala koo xam ne mën naa taxaw ci mbedd mi tàllal loxoom naan ngir yàlla kooku lañuy wax miskin ki ñuy wax fàqiir nag mooy li mu am doyu ko donte mi ngi am waaye li mu am doyu ko kon tey jii boo ñëwoon fekk miskin ak fàqiir ñu taxaw maanaam lislaam dalaa may nga jox faqiir bi ndax faqir bi ruus naa yalwaan rus naa ñaan te amul fu bi mais miskin bi mën naa ñaan mën naa saraxu te it nit mun nit mën na koo romb rek yërëm ko sarax ko moo ëpp sens faqir tey am na ñoo xam ne monsieur le président ñu ngi dëkk ci étage yu rafet bu ñu añee duñu reer am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci terrasse yu rafet bu ñu añee duñu reer am na ñoo xam ne ñu ngi yore oto bu rafet bu nu añee du nu reer fii may waxee yow nii fayuñu ndox fayuñu courant te it fa ñu lee fayuñu ko kon mis maanaam fàqir yi ñoo waroon di jiitu ci mbir yi ndax am na koo xam ne mënul leb kenn ndax bu lebee ñu ne am na ko fekk saag rek lay doxe am na ko xam ne mënta ñaan rus naa taxaw tàll loxoom di yalwaan moo tax mbir mi fi ngeen ko xoolee gënoon naa sori foofu maanaam fi ngeen xoolee mbir mi gënoon na faa sori am nañ son de am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci étage bu rafet wala terrasse bu rafet maanaam xottu kër gërëm ngay gis waaye wallaay tey jii sombi sax mun sombi sax amuñu ko tey maanaam amuñu lu ñu fayee courant amuñu amuñu lu ñu fayee ndox kon nag côté boobu bëgg naa nga xoolaat ko bu baax côté fàqiir yi bëgg naa nga xoolaat ko bu baax ndax comme yow lu baax rek nga ci jublu. dañ lay fàttali rek xëy na ñun ñi nga xam ne ñun la ñu ñuy woo ñooy dugg nit ñooy waxanteeg nit ñi ñun ñu bari dañuy di seeni soxla kon xam nañu tey jii ñun bu doon séddale rek donte amuñu jotam bu doon séddale rek xam xam nañu fi koy def bu ñu jàpp mukk ne ñi talal loxo di yelwaan rek wala ñi am bourse familiar familiale boobu ñoom la déedéet am na ñoo xam ne sonn nañu lool ñi ngi liggéey di fayeku waaye la ñuy liggéey maanaam munul faj seeni soxla maanaam munta munta def añ reer ndekki fay courant fay ndox maanaam am na xam seen métti mënu ko kon nga xalaataat ci loolu bu baax a baax a baax a baax a baax loolu daal lan la doon wax ne ndimbal gi daal deuxième tranche bi ñëw nga xool fàqiir yi ñi nga xam ne ñoo yalwaan ñoo ñaan ñoo taxaw ci mbedd mi ñoo jël yëfu jàmbur nga xalaat leen bu baax bi ci dess moy suñ takk der yi commencement bi da ngay def jàmbarte goo xam ne ñëpp ci and ñepp tiit tok seen kër waaye dama da nga a melni ku teggi seen loxo ndax nat bi may nat moy mbir bi bi muy commencé door a commencé te su ma sama buntu kër du mat 5 minutes te auto police romb suma su sama buntu kër wala ma yegg ci kaw terrasse bi dinaa tok 5 minutes bo xam ma boo toogee cinq minutes rek auto auto police romb la waaye da ngay toog fii trois heures de temps wala quatre heures de temps doo gis auto police bu la romb ba nit ñi fi mu ne ñi ngi génnaat ba am ay musiba yi am ndax waxoon naa takk der yi tey bu nit ñi toogee seen kër huit heures commerçant bi toog këram huit heures tëj magasin am tëj boutique am dem tëddi yéen la ci yaakaar yaakaaru ci kenn yéen la ci yaakaar. kon nag bu ngeen dul romb ñiy raas dem maanaam sàcc yi mën nañoo ñëw xool ne ah yoon bii kat alkaat yi yu ñu lañ jaar ñu dem dajji bi tukku jàmbur te yéen yéen a ko wax mu dugg këram huit heures yaakaar fa kenn ku dul yéen kon yokkaat leen yokkaat leen seen li ngeen doon def bu njëkk ba bu njëkk ba daal wax dëgg yàlla maanaam bu leen jàpp ne nit ñi miin nañu mbir mi rek nañu teggi suñu loxo donte metti na. caabante bi métti na gasoil bi métti na mooy métti na waaye takkaat leen seen i jàjj te xam ne am na ñoo xam ne ñi ngi ci suuf ñi ngi ci suuf di léeg-léeg nga gis kenn comme sama kër man ci bàyyal la nekk léeg nga gis kenn mu gàddu benn mbir gàddu benn valise gis naa kër ñetti xale ñu gàddu benn valise maanaam di traversé di dem léegi xamoo ndax dañuy dañuy tukki xamoo ndax dañ koo sàcc te it ñemoo dem ci moom amoo droit dem ci moom boo ñemee dem ci moom it amoo droit dem ci moom naan ko sa valise bi lu ci nekk ndax yow doo takk der doo alkaati da ngay seen yu bari yoo xam ne da nga ci ñaaw njort bu doon alkaati da koy arrêté ne ko lii lan la ba gis ngeen démb ñi ñëw ne ay alkaati lañu dugg ci benn boutique kuy jaay saw gis nga di di ko di ko def ni nga koy def ba ñooñu dañoo mujj xam ne ñii duñu ay alkaati ndax saaga yi ñu doon saaga ndax alkaati yi duñ taxaw di saaga ndey fu nekk nga saag ko ndey foofu lañ sukkandiku xam ne ñii duñu alkaati ñooñu dañoo dañoo mujj taal seen moto daw te it bëccëg gi daje yi yi ngay xam ne mi ngi daje fii bari na torop ñaan naa leen bëccëg gi ngeen di dugg di tas ndaje yi ndax daje yi ñuy daje bëccëg gi bari na torop xale yi ñu ngi fubal ci mbedd mi maanaam ñi ngi dajaloo fu ci ci ci bayal yi ñi ngi dajaloo ci grand place yi lépp bàyyi woon ko te bu dee nag feebar bi bomb la boo xam ne bu explosé mën naa lor koo xam ne yoonam nekku ci ñun nag wax la ñu mën ngeen jógaat takkaat seen jàjj comme ni ngeen defoon ci commencement ba ngeen boole ci bëccëg gi jotaay bu ngeen gis amul bopp amul genn ngeen tas ko ndax nag bu ñu tëjee jàkk yi ne jàkk kenn kenn dootu dem jàkk yi julli ji kenn dootu dem jumaa julli ji wax dëgg yàlla nag war nañoo jël ñii fubal ci mbedd mi wala ñiy toog grand place ci mbedd mi ñu tas leen soo gisee gaay di kaas di wax naan li du yoon du yoon du yoon dañoo tëj lii bàyyi li justement ci marché yi marché yi moom dara changé wu ci boo demee ci jotaay yi jaay portable boo demee ci jotaay yi wax waxta marché marché fi ñu jaay yére maanaam foo dem ci marché bi nit ñi dañuy taxalikoo dajaloo fépp ci Sénégal loolu moom bëgg naa ngeen jógaat ci bu baax baax ñu ngi ciy wax pour ngeen déggunu ndax xañ na bu ngeen ñu déggee loolu yëpp di di ngeen ko di ngeen ko mën a def xam naa xamu leen ko bi ci des mooy bërëbu kartukaay gii muy Lonase bër Lonase da romb fi ñuy carte ñu dajaloo fa di carte xaalis ñu ñàkk jom ñooñu ñi nga xam ne amuñu jom da nga gis ku bi ba ba xubi daas dem naan day gie pied mi fas buy daw France nga toog Sénégal na koy jàpp te carte dafa araam loo ci am daganul mënta takk jabar mënta tudd doom mënta dem màkk mënta tabax jàkk te loo ci lekk ay feebar la lay dekk ba ba ngay dee te booy dee dem safara carte baaxul mun leen a muus ak muccat ba carte baax tëj leen seen carte gii ndax bokk na ci indi indi ci lu indi balaa bi balaa bi carte gi bokk na ci li ko indi denaa leen balaa bi dara indiwu ko dul lu carte njaalo naan sàngara maanaam ku jekku sa morom lor ko loolu kese moo tax yàlla wàcc fi balaa bi ngeen continuer nit ñaa ngi maanaam bu tëjee place jàkka yi jàkka yi nga xam ne tey jii wax naa leen man ànduma ci ñu tëj jàkka yi waaye sama sama sama sama réew lépp lu ñu diglee dama cay ànd ànduk ñàkk pexe nag man ànduma ci ñu tëj benn jàkka ànduma ci tëj benn juma waaye nan ngeen mën a tëjee jàkka yi tëj juma yi lu toll ni julli àjjuma maanaam ni mu baaxee ci ab réew ñu tëj ko ba pare def ubbi bërëb bi ñuy carte ubbi lonance bee muy carte tegulee ko fenn fenn ngeen ko tegul da def lu leen neex ubbi bu ngeen mënta tëj lonance bee carte kaay bee tëj leen ubbi leen jàkka yi mu leen a tëj jàkka yi ba pare ubbi bërëb bi ñuy carte mu nekk mu leen a tëj jàkka yi ba pare bàyyi xale yi ñu dajaloo ci di fubal mu leen tëj jàkka yi bàyyi marché bi ñu fay dajaloo mun te nekk bu ngeen tëjee jàkka yi jullit yi ànd ak yéen maanaam jullit yi maanaam jàppale leen ndax jullit yi bu nu bañoon ne duñ duñu tëj ñu duñu duñu duñu ñu tëj jàkka yi mais musiba day am mais ñëpp nangu comme yàlla def na nag ñëpp nangu noonu maanaam bu leen def xej ak seen yooyu yëpp waroon tëj carte kaay yeeg fowukaay yi yëpp waroon a tëj jàkka yi ubbi waaye comme jàkka yi tëj nañ leen nañ xool ci mbedd mbedd yi. démb damay romb ba mu yàgg ma ne ñii xanaa xamul ne feebar bàgg ngi fi ñu dajaloo di fubal ci mbedd mi koñ boo dem ñu teg ay bal di fubal loolu nañ ko dindi nañ ko dindi loolaas nag moom nañ ko tëj moom waxuñu sax ñu koy tëj di ko tijjiwaat ndax kart mënoo cee am dara gisoo goo fi ba LONASE amee ba ba carte amee Sénégal ba léegi ñu ne la batiment B étage B ku gañe woon maanaam PMI wala ku gañe woon pare foot moo ko tabax musul musul am. loo fi am da koy day dem da nga koy day naaw comme ndox te boo dee yàlla duma la munul dara carte dafa araam tifaaxan kon tëj leen bërëb bu boobu bu fekkee nag mun leen koo tëj ubbi leen jàkka yi wala ngeen ubbi jumaa yi dañu waxante dëgg dañu waxante dëgg suñu mbokk alkaat yi daal li ma leen di xamal daal maanaam ni ngeen bàyyeekoo nii maanaam tax na. defe ne nit ñi toog nañ seen kër nit ñi toogul seen kër ñun ñi nga xam ne du ñu nelaw dañuy liggéey ci guddi gi maanaam lu nekk la ñuy gis waaye du ñu alkaati du ñu gendarme du ñu amuñu droit jàpp kenn waaye fii lu la nga fiy gis ñu fiy jaar kon nag maanaam na ngeen defar te tàmbali ba ñëpp respecté leen def ko ñëpp tegu ci yoon jàppaat leen ci ngeen defaat ko ndax nit ñi moom maanaam xamuñu yàlla yar rek la ñu xam te yéen moom baax ngeen fi lool sonn ngeen lool wax dëgg yàlla. sonu ngeen lool waaye nag gën leen a taxawaat ndax nit ñi ñi ngi commencé di génn ci guddi ba gis nga tey gis nga xale bi ñu rey fee ci course ba xam nga jam ko ay paaka ci xol bi ba mu dee sedd guy gis nga loolu barki dem dem naa fa di wut di wut ndawal ci daral bi xale yi ma ko doon defaral foofu damaa mujj tiit ba woo benn waay bi ma jaay ne ko kaayit gimbale taxaw fi ndax xale yi ku nekk ngi fees mi ngi fees ci serage bi foofu di xuloo yore ay paak ba ma ko déggee sax dama ne est du xale yooyu ndax dama leen bàyyi woon te yooyu yëpp lu ñu mën a taxaw la mu dañ ndax wax naa la ñi bëgg a baax ñi ngi baax mais ñi nga xam dañuy bon maanaam il faut ñu bon ndax feebar bi may affaire yu mel nii Sénégal maanaam lu xew rek da am ñu ciy profité tey bunde magal amna. am nga gis ñu taxaw bëgg a tedd ci màggal gi yokk paas yi yokk lépp luy jaar fukki dërëm ñu ne ñaar fukk bu dee gàmmu am na ñu def noonu bu dee tabaski am na ñu def noonu bu dee korte am na ñu def noonu nga feebar bi ñaataa ci génn jàpp ñu foo alkaati xaw ma foo militaire xaw ma foo gendarme foo militaire ah jàpp ñu fi koo xam ne nee na docteur la ah bay def ay test ci corona bi. réew la moo xam ne kenn xamul foo jëm kon nag monsieur le président da lay ñaan ngir yàlla ak yonent bi nga gën a taxawu seddoo bi moom man maa ngi ciy xaar lu bare bare bari bari ndax dama xam sénégalais waaye ndegam jël ceeb bi dund bi jël dund bi yóbbu ko moo am coow waxantuma la ak seddoo seddale ba nag ndegam yóbbu bi nag moo am coow waxantuma la ak seddale ba waaye nag ku ci gore ku ci deretu góor di daw sa yaram ku ci am jom billaahi ñemoo cee lekk ñaar ndax ceeb bii ñii dund bii ñuy joxe am na ñoo xam ne joxuñu leen ñoo gën a sonn sax ñi ñuy jox muy fàqir yi ma leen di wax nii mun ñoo ñaan mun ñoo lebi te it amuñu ñu jëm te li ñuy am doyu leen ñoo gën a soxla sax loolu gis nga ceeb bii wax naa leen ne leen képp ku ci def dara du la jig ndax nit ñi yàkkamti nañ ko nit ñi soxla na ko te ceeb bi dañ cee waroon boole dugub ceeb kenn mënu koo dunde ceeb bi dañ cee waroon woole dugub ak mboq ak yooyu nga xam ne boo gisul loo xam nga def fonde wala nga def cere waaye ceeb mënoo koo añ reere ko dañ ko ci waroon boole waaye comme kii na booy defaat rek monsieur président def ci def ci def ci dugub maanaam def ci dugub ku gisul loo xam ndax nawet bi ñu génn nii ku ne xam ne ne dafa dafa dafa dafa dafa galu gosé kon nañ ci bolé dugub kon lol dal mo nekkon suñu waxtan di wax dal comme ci sédélé bi commencé yobbu di sédélé mo am ciow man transport bi mo am ciow waxantuma lang sédélé ba dimbali len ñu ngeen rusu yalla rusu bi rus ñi nga xamné ne amunu ban leen di jox ngeen bañ ci yaakar dara bañ cee lekk dara man de buñ ma laajoon dama naan nañ jël camion militaire yi ñu yóbbu ko maanaam woo bonne volonté yi ñu abal seen oto am na ñoo xam sax dañuy abale oto teg def ci gasoil fay chauffeur am na ñu ko am mun a def fii nga xam ña nga def ne ñaari milliards wala un milliard cinq euh, un milliard ak genn wàll wala six milliards bi ñuy wax bu jógee ci transport bu jëmee transport loolu loolu mu jaroon ceeb ak du ceeb ak du kooku ñaata kon mënu ngeen a seet ba nga xam ne lii moo fi sës man transport waru woon a transport bi waru woon a mat sax un milliard ndax nit ñaa ngi fi yor seen i camion bu leen ñaanee maanaam mun na nañoo duy oto yi plein yóbbu ko waaye transport ñu naan six milliards moom bu dee dëgg moom xamatuma ci dara comme nag ministre bi nee na maanaam un milliard cinq cent la ka nga xam ne nag nee nañu xaw ma mooy jóob si xaw ma maanaam moom waru sax laal ci mbir mi dañ ko waroon jox ñeneen moom war ci woon a laal ndax député la mi ngi fay ko ay millions yu bari ci ensemble ba donte dafa am beneen liggéey mais dégg nga benn koo xam ne xam-xamam dafa mat ci yoon nee na lii loo jóob ci warul woon a jël transport boobu kon Sénégal mooy nii rek lu xew rek il faut que am ñu ci profito bëgg cee tedd waaye nag li ngeen di dajale yëpp di ko kof-kofi di denc ci banque yi di denc ay coffre-fort yu mag seen kër di tabaxi kër di tabaxi étage xam leen ni almawtu baabun wa kullu naa si daaxilaw xam leen loolu rek dee bunt la bépp nit na ci jaar jële ngeen def barke borom Touba barke borom Touba barke borom Touba jaaraama Serigne Saliou Mbacké